ay ca grand combat baa ngi noonu ci biir géew gi ñu ànd ak Meta Production mu yemool tey mercredi 20 novembre 2024 fii ci arène nationale grand combat baa ngi noonu ngi noonu de sëtu Fallaay

ñaari poids lourd lañ de moo ngem boo ngemul verte li moom sëtu Fallaye ay ca sëtu Fallaye ak pak ay ca sëtu Fallaye ak pak ñu ngi noonu sëtu Fallaye moo la woon ginnaaw jàppal jàppal jàppal. Sëtu Fallay ak bak da ngay genn de bu ben tank bi genn génnaatee rek ñu àtte Pak japp na de. Pak ak Sëtu Fallay genn na genn na da ngay jël avertissement. eh eh eh bu gën a bu génn. am nga benn avertissement de ngeen noonu Jules Baldé mooy wax non de. ay ca Sëtu Fall ak Pak ay ca Sëtu Fall ak Pak bëre bëre contact contact contact contact contact ay ca Sëtu Fall ak Pak ñu ngi noonu de am nga ben avertissement bu ko fàtte I just have to find like a ak pak ñu ngi noonu ñoom ñaar daan na ko daan na la daan na la daan na la Pak daan na Satu Fallaye Mbam daan na sëtu Fallaye Mbam daan na sëtu Fallaye jël na noonu Mbam daan na sëtu Fallaye drapeau mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu na pour yëkkati ko moom pak ñëw na di saafanteeg moom ay ca mu ngi noonu bi de nanguwul génn géew bi de mu de félicitations. ah yaa wa. félicitations. ni ngeen bëree ba tey. billaay. nga ñëw boo déggee mën a yow pota nga. waaw ah, yàlla baax na da ngaa ñëw wane ni yow doo pota da ngaa ñëw bëri na. waaw booy kóor gi laa koy yaa ne. laaw bi ma jëlee ma sa cinq jours ma ne ma sa andi ma sa ay si ba tey. ma sama tàng maa gaañu yaa booy. maa ngi laa di soog ba tey. barke Serigne Bamba. mais boo gisee ma jël ko point yooyu ne ñu sentiment ak ma yor ma yor ma sax tey moo ñu sax yor ma ma jëlee kaat booy nga dëgg seen billahi wala taala mais lamb am gëm-gëm boobu lamb dama war a fay nga ñëw bu ma ko jël entraîné koor métaat lamb mu dëggoon tëngeej ba tey avant koor laa ko jël sukar laa entraîné dama gaañ barke yàlla arbitre ba ma ñëw moo na ma simil kawas mais bu nekkoon man ak man kawas laay bëree barke Serigne Mamadou Diawa mais nu demee la moom damaa xeeb daa ñëw taxaw taxaw damaa xeeb na ma sofër ceceg laa maa ngi bëggee nag maa lay maa lay maa lay bëggee bu a baax billaay dama ñëw toog ba damay raat jaxaay naa ma leen ma entraîné dama feebar barke Serigne Bamba jàmm mais lamb la rek di nga ñaanal moom jàmm ndax fa laa dawalee la dañuy foore nga xam ne lamb damaa war a fay sant nag bàcc seeraan numéro 2 ak ñagas ak jaan liggéey ak sook da ne yàlla gaay na gaay jël képp kam jaxaay combat maa ngi lay ñaanal yàlla may la ndam ndax jaxaay maa fa gën a nekk tout temps barke Serigne Bamba jaxaay ah, mais billahi wala jaay la ma meta meta barke Serigne Bamba la meta dama la a la gërëm meta bu ma ñëw moo fayal dara dama ngay ñëw bëreel barke ma Bamba da jaay ndax billahi wala jaay dama ñëw lamb gis ñoo xam ne ñoo ma gën a nekk ma fuuf ma ñëw bëri seen lamb ma ba mu dalee tëgg combat surtout ma bëri grand combat lépp na ma xam ne sant billaahi wallaahi ma ñëw ma joxoon cent franc damay sëgg bëre billaahi wallaahi taalaay bu ñëw na ma kaay bëre léegi léegi ma ñëwaat bëre waat ma fay sax garaaw ndax combat lu mu def dafa rëy dama bëri a ma damay ñëw bëri seen kaw di wax na nag sama gars waa jaxaay dama jàppale man jaxaay laa fanaan mais adulee jaxaay dañu jàppale yéen mais ñuy bëri barke Serigne Bamba pour ñu jëlee ñu war a sa problème doon bu weesoo booy dajal seen xaalis ngi asubari cacegi barke Serigne Bamba amul kiy jox yëg rek xaalis ñu ko jox di sant nag booy ma ànd ñu mu xamadu ñoom ak Boxu ak Baba ñëpp maa sant ñëpp di ñoom ñëpp mais yaa nday sant la yaay baax baax sama barke Serigne Bamba sama yaay amul lu nday ci ma Ousmane Ousmane tey yaa duma fay reer tey reer duma ko fay maire bi jaay ndekki ci garage yaa ma digoon ay ndekki yu bëri barke yàlla